ajuma passé lañ ko voté bon 11 ñoo voté ni d'accord, nañ ci ni donc je pense que c'est la démocratie mais nak dama bëgg aussi nit ñi ñu xel li parce que au moment où le président Wade était là bu ñu ba dëkk ñukoy découper ndax nit mu jaral leen ñu un kilomètre carré au moment où Mbamilor am 150 km kilomètres donc yaakaar naa bu ñu demee ba nga xam ne tey incohérence boobu tey président Macky Sall bi nga xamee ne Malick Ba gaañu na fi mu ñëw kam di jaale mu ne woon loolu dina ko rétablir bu ñu demee tey ba rétablissement boobu am je pense que loolu warul a nekk loo xam ne nit ñi du ñu naan découpage bu bees la ñu def parce que découpage politique la déedéet loolu man d'accord ma ko man gis-gisu boobu yoruma ko parce que mënuloo jógee Mbambilor mbaa nga jógee cité Mbaba Guissé nga traversé Sangalkam nga demaat Mbambilor donc moo tax keroog vote bi man wax naa ni am na ñaari dëkk yoo xam daal bu ma sañoon dinañ leen rattaché ci Bambilor muy euh, Ngenduuf duuf ak ak Tivaouane Peulh ñàgg euh, non ak Déni Géej Nord bi nga xam ne dafa xaw a sori tuuti euh, ci Bambilor la gën a jege que plutôt Tivaouane Peulh donc loolu moom sama wax la boo xam ne dama ko wax te dëggal naa ko mais nag leneen li nga xam ne moom problème mu problème mu kii reconfiguration découpage bi la man daal gis naa ni vraiment état bi loolu bu ko defee man dama ci ànd ànd naa ci te naa ko xëy nit ñi ñi ngi wax ni règlement politique la entre Ndiagne Diop Omar euh, ak Omar Gueye mais il faut nit ñi ñu ko ni jamono bi ñuy def découpage Sangalkam Ndiagne Diop mo newoon vice président de la communauté rurale de Sangalkam donc je pense que lolu histoire la won mais nak tay li nga xamne tay tey aussi dama koy waxat diko waxat li tax tay Ndiagne Diop war mu dem ba nek maire de la commune de Bambilor mais Omar Gueye daf ci participer ndax man luma ma fekke la bu ma ko fekkewul woon du ma ko wax mais ñun ñett man Ndiagne Diop Omar Gueye ñoo defar la liste de la commune de Bambilor